nii amul rek daa jotu ko saa yu lu mel nii amul dafa jotu ko suñ bay jaxat nag dafa wax ne lu jot nga jot ca takkat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bàyyil kër-kër gi moo lu la jot muñal te bul dox di jàmbat coono foo mën a jëm ku am li ngay wut sawaamee coono yépp sawit léegi ci sëñ bi doon wax sëñ ñu ngi koy sant bu baax li mu fàttali ci mag ñi ak ni ñu àndee woon ak ni ñu dem ci seen ndaam Abdourahmane Lo di ko yéem lool ci taxaw yi muy taxew alxuraan ci guddi ak bëccëg yi waaye bi mu waxee bàggal mu ne ko lépp day sa barke bàyyi la rek waaw ndax man de eh, ñaari rakkaay yi may def alxuraan danaa ko def te duma ci yëg benn coono te yàqu dara ci liggéey bi may def ci bëccëg geeg yooyu daan ne ko waaye nag loolu li muy yéeme yéeme gënumaa yéeme Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne yàlla da ko dimbali ci mën a tërbiyee ceddo yeeg buur yi mu nekk ci seen biir di jaxasoog ñoom ak niti àdduna yi ak ndargam nekk ak taaxe te doxut diggam ak boromam dara xolo yooyu seere ni muy rafete mel na ne li ñu tee dem lépp ñun murid yi suñuy bakkat rek la ndax seytaane moom naagu na ci Sëñ Tuubaa bu noppi ay yes rabbi abadan wa huwal mu'in iblisa minni wa kasa kulla la'in ginnaaw naagu na ci moom nag yàq ku amati wala luy niru ak yàq saa yu amatee rek kenn ku ne na fëgg boppam bu bu bu bu ko defee dana daal di gis bunt bunt ba muy jaar ngir jàll yàlla nu yàlla gàttandu ak tawféexi sëñ Tuubaa ak ndimbalam sedd na xolu murid yëpp lii sëñ sii di wax ne moom la sëñ bi wax ci ñett yooyu feeñ na sax ci njàng mi xaat <laughs> njàng mi da cee feeñ xaat waaw sedd na sunu xol lool te mën naa ko waxaaleen murid yëpp yàlla na sax yàlla na law yàlla na mel ni sëñ Tuubaa bëgg sëñ bi nag nee na woon ndigal lëndëmu fajar la njëlbeen gi dana niru lu jafe lool waaye day gën di leer ba leer nañ lu lu dul ndigal nag leeru timis la fi ni nii ñu toll day leer waaye loo gën a dem muy gën a lëndëm ba boo talub ab làmp dootoo mën a dem ndigal ak lu dul ndigal noonu la demee nee na ndigal it kum taxanaaja boo jógee rek dabe sëñ sëñ Moussa Alima Gueye ci bindkati sëñ bi la woon daam bi sëriñ bi woo ko ba mu ñëw mu mu wan ko aw fekk aw fegg ni ne ko gis nga ko mu ne ko waaw mu denc ko ne ko demal sotti ko léegi indil ma ko mu waaxu dem jàpp ba sell toog rek jublu penku fas yéene jëfe ndigalu sëñ tubaay lu ne ci xalab rek mu bind ba mu ñëwee ñu génn fegg woo muy benn gannaaw bi nag suñu soñ bu daf koo laaj ne ko waaw kookee la binduloo woon loo mu a nga defe ko na mu ko bëggee ndax mënati nga ko ba tey mu ne ko moom ma ma ko digaloon bu ma ko digalaatee ma def ko waaye Sëñ Tuubaa lépp lu mu digal nit rek xam na ci moom ne mën na ko bu ko jéemee rek mu sotti waaye suñ Moodu Aminta Fall daa wax ne lii dàq gub am picc ci gubu dugub mooy dàq ndigal ah lay bañ ah boo nee fas nañ ko yéene rek lu mu jafe-jafe yomb boo nee ah lii kenn mënu ko wala nangam lu mu yomb yomb dootu jafe dootu yomb ci yow yàlla na yàlla defal tawféex ba lépp lu sëñ Tuubaa bëgg rek ñu man ko te defal ko ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon dañuy jox sëñ Matar rek ndax sànq suba lañ jokkoo dafa amoon ndigal lu ko dab moo tax mu waxoon ne euh, dina agsi kon lay mel ni ci biir jotaay bi la agsi kon dañ koy jox moom mu barkeelu ci rek bismillaahi rahmaani rahim barke sëñ Touba xaadim rasool suñu yaakaar ñoo ngi siyaar ñëpp tey jiital nag ak tuub akuk jéggulu ci waxtu yu ma ñëw agit ci sang yu tedd yi wax ba noppi ma war a wax ci seen kanam loolu it maa ngi koy tuub li wax mataleen sëkk ndax ñoom li ñu wax lool rek dañ fi doon taatan si li fi jot a jaar yépp ci ay kàddu nag ñu ngi koy rafetlu bu baax muy ay kàddu cant ak i ngërëm li ci des rek mooy ñun ñi nga xam ne ni ma ko waxee woon démb ay membre lañ am suñu jëwrin yii muy jëwrin yu mat jëwrin ndigal lii nga xam ne sëñ Tubaa sëñ Muntaxaa yàlla fi yàgg te wér digle na ko nañ laxasaayu te fexe ba ñoom seen xel dal ci ñun ne lépp lu ñu tëral ba ne jéego bii nañ ko jéggi nañ ko defee nañ ko bëggee defee ko nu koy seen jot ni ñu defee jéego bii ñu toll nii wóor na ma ñoom seen xel dal na ci seen xol sedd na ci nañ xam ne lii ñëw moom mooy raw kon nag mënuma cee wax lu bari dagam dañ ma jox ndigal sant rek lañuy def jërë ngeen jëf waaw kon ñu ubbee ko rek ak xasida yaa rahmaan yaa rahim bu ko defee mun ko tëjee jotaay bi sëñ Sidi sëñ Saliou ñaan bisimilah. ربي بما يشرف Villa Hare علمنا ok asalaamaaleykum mbokki taalibe yi dama bëggoon bala ñoo jug bala kuréel bi ñu ñu toogee nii bala ñoo jug rek kenn ku ne jàng fatiha ak lixlaasi falaxi naasi ak kursi yu ñu ñaan suñu borom jottalin ñu ko jàmbaari suñ tubaa jooju di suñu aatu ok bis bi bisamam bisamam bismillah barke borom tuba kon ñuy sant ñep rek di sant serigne bi bu baax a baax waaye euh, sëñ Mbacke li ñaan mu jiituñu timis ca jàkka ji rek insha allah ndax daanaka timis jot na jërë ngeen jëf indil ko ndam lépp doon ni ko bëggee noo xam dana kawe njort murit yépp zahiran baatinan jërëjëf tawfiqa tey si barke Cheikh Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi ziyaar mbokki taalibe bi yëpp ak mbokki jullit yëpp di jotlee kàddu yi cant kaddu kàddu yi cant yi li ko waral mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom la yàlla